Malick di la nuyuwaat encore di nuyuwaat ñëpp ah waaw di nuyuwaat Touba aussi di ñaanal euh, xalifa bi sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg ak bépp xalifa bépp këru diine ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp waaw comme ni nga ko waxee rek noonu la demee ko yàkkamti wuñu dara ci làmb lañu nekk xam nañu làmb nu muy déroulé kon du ñu yàkkamti quoi am na benn mbir bu naan ràmbax xaw ma booy bàccax affaire yooyu yooyu dañ koy bàyyi xel sa waay nag xam nga mm, mu ngi naan ñor tabi mais xamul lan mooy lool fa ñuy dem quatre heures du matin ñun ci alba lañu dëkk di furaatu quatre heures du matin bu fa jógoon day daw waaw garab bu mu mën di doon ci lëndam lañ koy for te dinañu xam mooy lan waaw <laughs> nanga laaj bawol bawol yi lan mooy saakaande wala kajoor kajoor yi bés bi dama bëgg mu saakande hmm? na leer waaw waaw na nga laaj bawol bawol yi lan mooy saakande wala kajoor kajoor yi voilà du leer na ñaa amul moo koy wax suma frère la suma frère la lamb moo ñu boole ñu ñu war a di daje man nag damay ñaan yàlla yàlla na ma yàlla may ndam la doon wax wax rek li wax wax man lima japp bu beure ñak bu xexé ñak amul lenen na arbitre soufflé ak jàmm ak salam rek lool lay ñaan yalla ma def na mu doon def damay jël mu ñamé la bani mom mo jëlal boppam combat bi loolu perturbé wu la yow arbitre na soufflé ak jàmm ak salam man damay jël place am looloo gëna dé force inshallah rabbi way bu arbitre soufflé damay jël place am inshallah thank you